ngi tudd Ibrahima Sène maa ngi armée 1998 ma libéré 2000 maa ngi Touba 2003 2003 ba léegi maa Touba 17 ans lu fi xamul nag amul. doon vigile ca je bi dal ma man maa ngi dëkk euh, Darou appartement. suis ak sama famille. Euh, ay mbokk taalibe yoo xam ne ñoom ñoo wut appartement bi su luyee ma man sama chambre man kese man maa fa nekk. yàlla dogal nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la doomu jàngoro bi duggoon est-ce que mënuñu xam nan nga euh, yéegi nii feebar bi dal na la. tawat bi mu ma dal la son le 11 avril bi ma dalee la 11 avril ma soox ak moom ba le 14 bi ma sooxee moom ba la 14 le 14 nag ay booru 20 heures moins ci laa mënatul résister.

tey laa génn. Euh, bi nga ko yëgee lan moo nekk sa réaction bu njëkk da nga tiit da nga jaaxle lan moo nekk sa réaction bu njëkk. xaw ni woon corona laa man wóoruma mais le 11 bi ma yeewoo commencé sentir sëqët may dox ak ba mardi le le samedi ba mardi may dox ak di muñ dem pharmacie le samedi la ma dal pharmacie ma dem fa le dimanche ma jënd fa ak terpine codéine. parce que sëqat bu ma mësaan a dal bu ma jëndee terpine coréen day taxaw naan naa supp ñaari yoon taxawul ci laa ne nag man kon est ce que du tawat bii moo ma dal parce que fu may liggéeyee dafa bëri nit ci centre commercial bi ñuy jaay portable ci biir centre bi dañoo war a génn waruñu jaay portable foofu noonu dama leen di dàq mais des fois ñu teg ma dëgër damay simi masque bi simi gants yi man foo ma fekk bi ñu nee tawat bi ba am na ba léegi feebar bu bon bi foo ma fekk damay sol gant damay sol masque. lan moo la gën a marqué ci jamono ji nga nekk foofu ñu ne da nga feebar da nga am coronavirus feebar bi ñëpp di ko daw yow nga nekk foofu yore doomu jàngoro bi sa séjour foofu ci Daaru Marnaan li ma gën a métti nag mooy maanaam ki ma doon liggéeyal moom gëmul ne moom feebar bi am na bi ma ko nee maanaam mercredi damay dem euh, seeti sama yaram xam nga lu ma wax mm. moom day liggéey maanaam ci wàllum. composant garabu olof mu ne ma kaay ma jox la am na lu ma jot a baxal kaay ma jox la ko nga naan ko mu ne ko saay man damay dem hôpital looloo ma doj mais bi ñu ma entré ba ma woo maa ngi hôpital daaru ma naa mu ne ma waxoon naa la bul dem foofu man bi ma gars yi di enquête wax ma ni ma foo jaar kuy sa chef ak affaire yooyu noonu numéro laa joxe mais moom gëmul ni feebar bi am na man ak moom fii ma lay waxee nii tàqale koo nañ parce que man nit nit laa ci xam moom nee na ancien soldat laa man ancien soldat laa bu ma doon dee moom dafa war a deewee non dañ ko woo ni ko boo sentiree dara wooñu man fi ma jaar yëpp fi ma leen wax jaar naa fa yëpp ku ci nekk loolu lañu la wax parce que man fi ma jaar yëpp maanaam man du ma nuyoo du ma la jege dama lay sori noonu la demee man je prenais mes précautions Budaya dee yàlla dëgg rek la bëgg mënumaa wàll nit man bi ñu ne dañuy dem sama njaboot sama dama ne leen jaru ko parce que 14 jours a ngi nii gëj gëj naa fa mais dem nañ defal leen dépistage mu négatif. foofu nu leen doon faje dañ len jox hay comprimé dañ len don vacciné wala lu mu doon. nan naa fa ay doom yu bari nag. ñaata comprimé. comprimé yi li ma fa 36 e comprimé. ni chloroquine nan na ko fa par yeneen yi naan naa fa ñett ak beneen boo xamante ni maanaam sama biir bi dara ndaw ñu jox ma ko waaw yooyu naan naa ko fa maanaam bi may doog ñëw docteur yi ñu ngi jox ñuy xéwlu mais xéwal bi moom bu dee yàlla dëgg rek la bëgg man moom dëgg laay wax ci laay dee xéwal bi maanaam day yéex a ñëw day yéex a ñëw ñu ngi xéwlu bu baax mais maanaam. nañuy jox ñu gën a xéwalu barket bu ndaw mënta suur nit man boog suuruma benn pain mënumaa suur man duma tawat rek bañ a lekk bu ma tawatulee ci laay gën a lekk bu ma tawatee tamit damay lekk yaa may dégg loolu dama leen ko wax ñu ne ku suurul na nga wax après loolu nag ba ci maanaam xaw ma Baay Faal yi ñoo fay indi xéwal yi sama mbokk Baay Faal yi xaw ma ku baax sëñ bi mais jamono yu weeru koor bi yëpp bool boole dina fa ñëw. jamono ji nga nekke foofu it amoon na coow lu bari lu fa judd ndax am na benn malade bu nga xam ne ñu ngi nuy wax ne dafa amoon ay audio yu mu defoon génne ko ci biti euh, ba mu jur coow moom muy wax ne feebar bi dalu ko euh, loolu lu la def bi nga déggee loolu. ci laa déggee envoyé na ay vidéo sabote na lekk bi saboté serviette yi ñu jox saboté brosse yi lépp mu saboté ko ki ko envoyé ni tawat bi amul. garab yi ñu koy jox da koy sànni ñu dawal dawal dawal jékki-jékki bi affaire yi demee bi mu ko publier koo ko woo enregistré ko mu ne ko na nga fexe ñépp jot ci Malick moo koy wax loolu na fexe ñépp jot léegi bi mu ko waxee loolu moom le surlendemain wala le lendemain loolu bi ñu ko woowee ni ko saawaay yow li nga wax ni publier ko loolu si jublu xam nga ci teg maa ngi jégalu man biñ ko coupé lañ ma woo man sama néeg man kese maa fa nekkoon biñ ma wooyee ma décroché wax ni leen kii li muy wax dara du ci dëgg amul moom buñ ko joxee garab du ko naan nit ki nag tawat bi mën naa nekk ci yow te maanaam signes yi du manifeste. léegi yàlla dogal na génn nga wér nga euh, defal naa sa test bu mujj euh, waaye dafa mel ne ay xibaar dafa fës ci ne euh, fa nga dëkkoon daal foofu taamuwulu nga dellu si waat foofu. waaw fa falaa dëkkaat ba léegi nii waaye maanaam kama ma fa suuluyee ñu koy wax Tijaan moom mi ngi liggéeyee ci fast food moom moo ma suuluyee man ak moom ñoo doon liggéeyandoo mais barkaat dem bi ma ko wooyee dafa ne ma borom kër gi. nee na ñun ñu génn loolu la mu wax ma ne ko ndax lan mu ne ma corona bi yaa ngi may dégg loolu la ma wax mais ma fexe ba am bor numéro borom kër gi moom moo ma ko envoyé pas borom kër gi mais ki nga xamante ne man maa yëkkati xaalis bi premier avance bi sax jox ko ko mu fekk ñu ba 28 waa ji ma ko woowee sànq dafa ne ma loolu amul ñun mosuñu yëg sa tawat xam nga tamit yàlla dëgg la bëgg mu ne ma ñun mosuñoo yëg sa tawat. mu ne bu bëggee génn na génn mais yow ñun mësuñoo yëg sa tawat bu dee da ngaa bëgg génn yow tamit nga wax mais mësuñoo yëg sa feebar parce que man dama ne ko balaa may dem toog ci télé bi wala rajo bi di wax bëgguma togn xam naa sam bopp bëgguma togn wax ma lu wér li nga xamante ni moom moo nekk ma saay ñun bi mësuñoo yëg sa tawat mu ne kon baax na lii laa ko tontu. kon day mel ni stigmatisation fi mu toll nii dalay daal di dal nit ñi dafa commencé daw. yàlla nañ ma daw ba tey ñenn ci waa Touba kenn du ma jàngal seen jikko xam naa leen bu wér def naa fi 17 ans man xam nga lu ma gëm maam Serafal point séquma ak sax koo xamante ni daf may daw ci gàttal li ma lay wax ni lu wér la man awma xarit awma àndandoo awma ku may fréquenté. yalla rek mo tax may wax xam nga ñan ñoy sama xarit sama soxna ak sama ñaari tout tànk léegi wér nga wat nga sa njabot est ce que mën xam lan moy sey mbébét fiñ ñu toll nii moom delloo naa ko la ko subi ma joxon parce que man nit li ma la mëna jappé moy yalla deug la bëgg tank ni bala may ñëw fi la ko yobul la ko sam la ko ma jox léegi lan nga mëna bax ci fièvre bi coronavirus pour ñi ko xamul ñi koy dégg ñi di ko weddeeg yoy lan nga mëna bax ci ay xibaar ñeel fièvre bobu budaya dee yàlla dëgg rek la bëgg dama ne lii mënta nekk parce que kan nan lay solé masque sol gant mais dama wat sama xel ci yalla xamni yalla mom ko tek nangu def fa maa fa def ces jours laa fi def ru ma naan lañ may doog yewi ni ma kat mën nga ñibi sa kër. waaw bay fa yow waxtan bi jeex Dakar tu ngi lay jajeful baax baax ngay tagato manam limay sakku moy fiñ toll nii liggéeyatuma ak ki ma nekkaloon yaa ngi may dégg baax lu ma la maa ak sama kaytu bonne conduite armée maa sama attestation garde rapproché nit bu ma soxla pour ma gàddal ko këram wala mu soxla gardiennage pare